ndewoy ndewoy ndewoy seymane ndewoy alaykatim ka ya mais ñuy seet naka la lamb yi def su calculer seet naka ñu ñuy répartir la ñu teg du yoon te il faut ñu saafara ko donc euh, ci solution yi wax nañ ne il faut ñu def une sonorisation bu baax def ben micro baladeur bo xamné wa table technique kessé ñoo yoré yok yokk lamb ji manam arène bi def ay cérémonie de présentation de drapeau parrain yo xamné dañuy génn géew gi ñu bëri ñu respecté ndaxte xam ngeen amna circulaire bo xamné ne na bu dox nak lañu répartiré ci bëri simple li ñu teg dañu waxoon ne ku gagné yay am 50 ci lañu ñu teg ñu gagné moy am fanweer ak juróomi ci lañu ñu ci pourcent demi-finaliste yi am ku nekk 10 quart de finaliste yi am euh, euh, comment ça s'appelle 5 donc lolu il faut que région yépp diko appliquer.

amateurs yi aar mbër yi techniciens drapeau chef de l'État bañ ko tëgg nañ ko wax na mobilisation amoon na sensibilisation organisation aussi Diourbel réussir le pari de l'organisation et de la mobilisation waaye nag euh, na ay jafe-jafe ca dalukaaya ak ci mbirum koppar ñuy seet tournoi cdao Sénégal organisé na ko ba nga direction CDGS Sénégal jël na ci ay ndam maanaam moo jël ñeenti médailles yi benn bi la perte moo nekk 120 kilos bi ndax suñu 120 kilos dafa daanu woon. alors le part également a été vraiment gagné par notre pays boo seetloo maintenant lutte avec frappe bëri dóor tëgg nañ 84 galas de lutte avec frappe fii ci Dakar ci loolu lañ la nga xam ne mu lañ déclaré CNG te CNG encaissé ko moo kon ñaari téeméeri million ak ñeent fuk ak ñeent ak juroom ñeent fuk junne manam 244 millions 450 000 francs mom lañ déclarer woon au CNG mom lañ répartir n'est-ce pas mo da ko reliquat nga mom lañ jox mbër yi alors montant droit d'organisation yi yi nga xam moom lañ versé CNG également par les promoteurs nekkoon na fuk fukki ak juroom ben ak téeméeri junne ak euh, ñaar fuk muy 46 millions 600 000 francs loolu nak xaalis bobu yëpp mom lañ arbitre commission médicale fay commission d'organisation def ci frais transport aménagement pour l'aire de combat au niveau de différents sites de compétition manam pour alors rapport yi dañuy def journée pour 34 promoteurs de procure promoteur ak ñent ñoo amone écurie yi nga ñoo ñoo toll na ci téeméeri écurie ak ñaar fukki juróom-ñett amoon nañ it ci ay réclamation ñeent fukki réclamation ak ñeent maanaam 44 décision yi nga xam ne dañ ko bàyyi fa mu woon mu nekk 27 am décision yoo xam ne nag dañ ko infirmer maanaam dañ ko dindi nekk fukk ak juróom-ñaar muy 17 donc loolu c' est en fait euh, ay résultats techniques la ci région yi journée yi bon Fatick ñëwul ba léegi mais xam naa ne Moussa boo ñibbee foog ngeen fexe ngeen indi ko ñu intégré ci rapport bi quand même le s'il vous plaît, il faudra hein, envoyer ça rapidement. Voilà, parce que Il ne pas être le poumon de la lutte euh, traditionnelle et ne pas envoyer son rapport quand même. D'accord. Alors, Durbel, devons 18 journées, Thiès 18, Dakar 84 journées, Kaoulak, 11 journées à lutte euh, avec frappe. Hein. Saint-Louis 6, Louga 4, Kédougou, Defoul, Beredour, Matam Defoul, Beredour, Kafrine Defne Nyari Gala, euh, Tambacounda Defoul, Beredour, Kolda Defoul, Ben Beredour, Chor, Defoul, Beredour. Sédhiou benn la def alors loolu day wane ne bëri dóor bi dese nay tasaaroo ci réew su dee bëri simple presque ñëpp def nañ bëri simple mais bëri dóor am na région bi léegi boo ñoom foofu defuñ bëri dóor bi kon nag vraiment bu baax a baax a baax ndaxte li ñu seetlu ci mbër yi ay ay ay gaañu gaañu yu superficiel maanaam yu kawe rek euh, ci seen der la ñu euh, noté te commission médicale bi vraiment jëloon na leen en charge alors am na ay jafe-jafe yeneen jafé jafé souvent li CNG presse bi wala ci biti également gis nañ chronogramme manifestation euh, ak durée cérémonie dafay gudd ci drapeau yi alors ñu tous yi vraiment dafay gudd également <coughs> parce que combat dafa bari par exemple 20 lutteurs ko euh, ku nekk tous. ku nekk su minutes ça fait 200 minutes muy ñetti waxtu yi teg ñaar fukki minutes loolu bari na lool. alors acte de violence également ci diggante spectateurs yi physique et verbal ci biir wax wala ci euh, laalante avant même ci biir làmb ji wala après galaay aussi noté nañ ko. alors yàq-yàq chaise yi arène bi aussi metti na lool te loolu vraiment jaadu te ñu ngi koy ñaawlu lool lool lool lool lool. manifestation yi maanaam làmb ji guddee tas bi arrangé wul kenn te loolu il faut que ñu fexe ni ko fi jëlee. amna na it ay certificat médicaux manam médicats yi ñuy indi yi mbëri indi yoyu dañ ko xolaat bu baax parce que gis nañ ne dafay yak ay programme té waxtu bi ñu koy indiw de waxtu yu jaadu recommandation manam ñu diglé ne ñu xolaat contrat yi contrat assurance lutteur yi pour ñu jël même lutteur bi su amé combat ci depuis ci entraînement assurance bi jël ko en charge ndaxte mbër mun na dem entraînement gañu fofu té bu fekké entraînement euh, assurance couvrir ko aussi problème la ñu xool également prime assurance bi pour ñu woyofal frais yi yi nga xam ne dañu oyofal prise en charge lutteur blessé bi ñu xool également la question du port boobu lancé woon nañ ko gants yi est-ce que réellement jar nañu xoolaat ndax war nañu sol ay gants lañ ko géré même boo amee parrain bu fekkee ñëw na ou nga teral ko ci loge officiel bi wala nga ko mën a teralee mais xëy na si ñaari parrain mën nañu wàcc ci suuf bañ a dugg ci eh, géew gi alors ñu sàmmaat dolli sàmm intégrité physique maanaam wér-gu-yarami yi ak également sen taxaway ak sen nekkin bu baax a baax ba ñu encourager li nga xam moy mooy e, euh, la mise en place des commissions médicales manam écrit bu nek war na am commission médicale lolu moy mooy yoon écurie bu nekk parce que nekul na nga am docteur rek mën nga am docteur mën nga am infirmier mën nga am euh, un aide soignant mais koo xam au moins les premiers soins. boo anekk entraînement sax nga xaw a euh, poxoj wala nga rëq mu bandal la ko wala mu traité la ko wala nga amay xoos-xoos au mu defal la premier soin avant ñu lay yóbbu hôpital alors ñu fexe également appliquer les décisions sécuritaires maanaam avant organisation bu nekk mu ci contrat yi di ko ci signal ak promoteurs yi wane ne balaa combat war promoteur war sécurité boo déggee sécurité nag police la gendarmerie sapeur yooyu mënul ñàkk parce que dañu ne c'est un préalable maanaam lu war a jiitu organisation là amna fi ci Dakar amna ci région yoo vraiment ay rëccu rëccu lañ ci jëlé motax ñun il faut ñu corriger loolu alors ñu ngi xalaat aussi pour ñu wàññi nombre combat yi bu fekkee nombre de combat yu bëri moy indi goudé bi ñu sét nu ñu ko wàññee bu fekkee tam du loolu ñu bàyyi ko fa mu mais ñu sét naka la ñu def ba nga xamné ne dootul goudé alors parce que xalaatu ne bu yemee à six combats après euh, teg ci grand combat bi da vraiment dina dina baax trop alors promotion yi combat yi war nañ leen di officialiser maanaam ñu jaar CNG ñu xaatim ko ba pare siife ko foofee balaa ñoo dem ci naan ay promotion dem ci télé yeeg def face à face ak yooyu règlement daf ko tere te loolu vraiment bëggatuñ cee delluwaat. alors mbëri lu grand combat ñoom ñoo am droit ci face à face ñëw ak seen manager ak accompagnateur benn yeneen mbër yi ñoom seen manager donc la ñu war a àndal mais mënuloo naan dañ fa face à face combat préliminaire ku nek and ak sa sa gangor ñëw non lolu combat grand combat donc lañ ko may. alors relation diggante CNG ak promoteur gis nañ vraiment rapport yi gën na baax ren am ab yokuté té lolu aussi ñu ngi ciy gërëm di sante encore euh, promoteur yi nga xamni ne ñu ngi ñoom bokk lañ liggéey bi. suñu diggante ak manager également gis nañ ne compréhension gën na yokk na ñu ngi gën di déggu lolu amna na solo waaye nag laaj na ñu mun di am. maanaam am na ay copie contrat yoo xam ne sponsoring bi dafa am solo xam nga li nga xamul li nga fekkewul bu ñu ci bëggee woo ne la sa xalaat day gàtt xalaat boobee naam sponsoring CNG du ci dagg dara CNG moomu ci dara te amu ci dara mais ñu yëg ko combat bi signé nañu ko euh, nangam lañ fay mbër mi sponsor nangam la ci fay nangam la ci dugal vous savez xam nga loolu li muy indi yëpp mooy day màggal day tax ñu ñu yokk suñu suñu dayoo xam nga fii wax nañ ne fay nañ ren 244 millions te am na combat yoo xam ne ca lañ dégg ci presse bi rek mën na 240 millions wala ñetti combat rek boo ne fay nañ 70 millions que le 60 millions ça fait 130 que le fait ko 50 que le 70 muy 120 ça fait 250 millions te ñun li ñu fay yëpp ci 84 galaay ça fait 244 millions officiellement donc il y a problème loolu nekkul ne dañoo bëgg a gëstu mais non loolu euh, taxuñoo jóg mais ñu xam ko day tax la valeur marchande de la lutte sénégalaise da fay gëna yokk day am day am gëdd am ful am fayda nam du ren rek la am yag na fi euh CNG ba fi nekkee 26 ans ak 2 ans yépp amul benn yoon boo xam ne officiellement mbër fay ko na 50 millions 60 millions pardon amul. yéen yëpp ay ci mbedd lañ koy dégg rek mais loolu amul ci ci ci archive yi alors taxaw nañu également pour que lutte olympique bi ñu gën ko développer. xam nga lutte olympique comme moomuñu ko il ko ñu di ci góorgóorlu encore te bokk na suñu cahier de charge moo tax CNG bëgg na utal ay praticables maanaam fu ñuy defee lutte olympique ay régions comme Kolda Tamba Saint-Louis Diourbel Matam Sédhiou Kaffrine et Kédougou pour que ñu am au moins fu ñuy mën di entraîné woo fu ñuy mën di bëree lutte olympique bi. bëgg nañu également ñu taxaw pour def ay tournois beach wrestling ci Ndakaaru ak ay régions yi am plage xam ngeen euh, ñun.

jëlee ay médailles d'or yu bëree bëri donc nit kii da ngay seet fa sa doole nekk nga gën kaa développé. Euh, alors ñu ngi xool aussi naka lañ mën a def ba bu fekkee ne équipé nañu région yi ay praticables olympique ñu jéem a taxaw pour defar benn championnat wala benn tournoi national olympique. ci walu beure simple bi CNG bëgg na bu amé moyens mo un tournoi interzone pour la petite catégorie manam xalé yu ndaw yi xam nga Jeux olympiques 2026 day ñëw JOJ ci Dakar moo ay dana ñaaw lool ñu Dakar Ndakaaru ay waye médaille dem nañ bitim rew alors pour ñu préparer wu dañu wara a bi am équipe nationale Il y am 10 ans 11 ans 12 ans ñu waajalee légui légui ni mais pour mu am il faut ñu def par exemple, un championnat de lutte olympique. À ah, pardon, un championnat de lutte olympique, oui, mais aussi beach wrestling, bo xamné xalé yu ndaw yi lay doon. Mais lolu il faut que ñu ñaax région yi pour que ñu commencer à faire un championnat national. Xam nga bo démé ci région yi ak Dakar bi amna xalé yu tout yo xamné mën nañ bari lool. Bo lay sélectionner rek bon mën am li nga bëgg. Alors euh, alors médiatisation bi également ñu continuer diko def pour Wajal Jeux olympiques bu 2026 alors bëre simple bi seetlu nañ également que ne mbër yi bu fekkee ne bëre dóor la avertissement yi am na nu muy toll dafay am sanction bëre simple bi dañ lay averti ba final te du am benn sanction ñu ne il faut ñu xool naka la ñu defee à part des quarts de finale euh, avertissement yooyu di compter ci effectivement euh, ci mise ba nga xam ne lenn li xëy na dañ ko jox promoteur bi yenn jox ko structure ba organisé ndaxte du yoon chaque fois nga bëri ñëw ay avertissement te vraiment

mais loolu day day day renforcer les mesures d'éducation et de sanction pour mener à la voilà ñu lañu ñu seet naka gëna ñuy li euh mesures pour éducation bi pour sensibilisation bi ak pour information pour vraiment ñu dem yóbbu violence au point zéro ndaxte violence aussi daf ñu gakkal lool lool lool fay ñaal suñu der alors euh, ñu xol xalaat bi pour dem pour droit licence yi photographie ak télé yi nga xamni ñom nous euh, jëluñ en charge direct bi ñu sét naka def pour licence alors ñu sét commission organisation également nous lañ koy régénérer ñu def ay ay xalé wala ñoo xamne am nañ bu baax té mëna gérer euh, langue le temps de combat ak grand combat nous dañu xalaton combat yi ñu réduire ñu temps. sen temps grand combat 2 fois 15 minutes plus 10 ça fait 40 minutes bërna ci combat individuel bo xamné ne dóor la bëri na ñu xalaat pour ñu wàññi ko combat préliminaire également bo seetee statistique rarement combat préliminaire boo xam ne def na deux fois 10 minutes ñaarel ay quelques secondes quelques minutes jeex ñu xalaatoon pour ñu seet naka la ñuy wàññee grand combat bi temps par exemple su nekké né waxtaan nañ ko même su fekkee deux fois 10 minutes la ak ben temps prolongation ñu def ko mi-temps bi également c'est 20 temps lañ koy dox alors texte réglementaire également suñu règlement yi ñu ngi ciy liggéey pour yokk ko maanaam améliorer ko adapter ko ci situation bi ñu nekk nii loolee après nañ oote waat bu xool naka lañ koy euh, officialiser jox ko ministre des sports ñu xoolaat réfléchir encore bu ne réfléchir nag mooy composante yi mooy managers yi mooy promoteurs yi mooy mbër yi mooy entraîneurs yi mooy amateurs yi nous avons ñuy fexe ba seet médiatique eh, la couverture médiatique des de lutte C'est également naka pour face à face ñu gën ko eh, ci yoon violence. licence promoteur de lutte avec frappe 300 lañ ko de lutte sans frappe 100 lañ ko licence avec frappe 10 000 francs lañ ko licence sans frappe 5000 francs lañ ko licence de lutteur. 100 000 lingkodello, réaffiliation école est que 10 000 francs lingkodello. Alors, qui peut nous aider, nous devons nous yep. Amiaka, il y a beaucoup de malades, beaucoup de mouquais, pour que vraiment nous demeissions en baisse, Inshallah aujourd'hui, nous y allons, nous pourrons faire du travail, du yato, yato.